yéen ñi xam-xam ñor ak sunu jotaayu xalima bu ñaaw di dalal boroom xam-xam yi fii ci sunugal 24 point net kon nag tey seen gana ngoog asalaamaaleykum euh, téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ci seen euh, site bu am solo bi di sunugal 24 point net mbokk yi sunugal 24 point net nu mu koy safoo di defee saa su ne muy jotaay bi nga xam ni seen jotaay xalima bu ñaw ñàkk koo seetaan itam euh, wóorut tey mbokk yi ni ma leen ko waxee rek tey ñu ñëw fas yéene fi si tey di euh, Adi euh, Dem borom wilaya ñu gënoon ko ràññ rek euh, bërëb nga xam daañu ko fa fekk di Saloum waaye tey jamono yi mu ngi ci diwaanu Ndakaaru balaa ñuy sori dañ koy daal di bàyyi kàddu gi mu daal di nuyoo Cheikh Adi Dem borom wilaya asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamina wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina wal axirina mbokk mi ñu ngi lay nuyu di la sant di nuyu ñu nga àndal di wax bismillah jërëjëf Cheikh Hady euh, Deme borom wilaya Cheikh Hady bu ñu la doon laaj tey kan mooy euh, euh, Cheikh Hady Deme tam loolu bëggoon nañ ko xam sa jaar bi nga xam ni fi nga jaar gëstoo li nga xam moo di wàllu ñaan yàlla di lasraar loolu tam loolu nga ñu ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi jaar seen ëtt sëriñ seen sëriñ moo ñu dimbale mooy si fa lañ jàngee fa lañ wattoo alxuraan fa lañ jaax koo xam-xam bañ feree ci xam-xam fa lañ nekk tamit mu tarbiye ñu fa lañu tarxiyaa tamit toogaat foofu noonu ci ay tànkam mu ñuy sant ay ñaan ñu koy ñaanal yàlla heure bu aajo bi fajoo mu ñëw nañu aajo bi faju na si ñàkk ki ñaanam bañ demee ba mat pour génn tamit moo jox nañu ndigal tàllal ñu loxo ñaanal ñu yàlla nañu fu leen neex mun ngeen fa dem seen kàddu jotee na fépp. lu waral borom wilaaya wilaaya bi ñu lay dàkkantalee yaa ko tuddee sa bopp mooy wilaaya itam dañ la koo dippee. waaw wilaaya tuddee ma ko sama bopp sama sëriñ ma tuddee parce que dañoo nekkoon ci benn géew géewu zikar mu ñëpp ñu ñëw ziyaare ko ma ñëw ziyaare ko ak sama jëmb ju xeebu ji mu ne ma yow da may jox xaalis ma làmb ma yor ne cinq mille francs kese ma waroon ko joxe dépense ma ñëw jox ko ko mu ne ma ñaanal naa la koo ñaanal ñaan gi day nangu te warlul naa la ko sax waxuma ñaanal naa la ko warlul naa la ko képp koo ñaanal aajo bi day faju moo tax des fois da may sant ñaan sax damay tàllal loxo ñaanal la aajo faju te du ma kurus jërë ngeen jëf mbokk yi mu mel ni am na solo Cheikh Hady Deme borom wilaya dégg ngeen li waral euh, wilaya bi tam gis ngeen tam li waral tam fi mu gëstoo ak ndigal gi nga xam ne am na ko euh, ngir rek duggante li nga xam ne moo di wàllum ñaan yàlla tabarkaal Cheikh Hady ñu daal di dugg ci wàllu li nga xam ne rek dama koy euh, ubbee jotaay muy wàllum ubbeeku uh-huh. ubbeeku uh, tam ak gi xam nga wax waxaat du bari wax waaye ku ci nekk ak position bi nga toogee uh-huh. ak ni nga xamante tam moom ngay jëflante ak askan wi ba résultat di am uh, tey ki ñëwoon pour uh, sàkku ci yow ubbeeku uh-huh. ci ban anam nga mën a jaar ak moom waaye tamit ginnaaw si bu fekkee ni ubbi jaar na foofu ba mu noppi kaaraange waaw ubbeeku dañuy jaar ci bunt yu baree bari ndax doomu aadama lu ko war a ubbi mën na bëri mën nga koo jaaree ci sunguf dañ koy liggéey ci sunguf ci comme comme sunguf sunguf sump rek dama ciy liggéey doomu aadama taal ko ci lu yomb ci lu matut ay fan loo xamante ni su fekkee wàllu wërsëgam dafa tëju. sëñ ma de sunguf nga wax sunguf. sungufu sump rek. rek dama ciy liggéey loo xamante ni jox ko doomu adama bi mu liggéey ko dafa ànd ak ay alxuraan yoo xam ne ko wax parce que soo ko waxee nit ñi danañ ko sàcc wala ñu yàq ko wala ñu demee ko neneen moo tax dama koy utiliser ma sangoo ko si ñett fan rek laa ko may. ba si alxames ba si altine ak ba si samedi incha allah rek ko neex mun na dana yàlla da koy taal mun ci alxuraan mën naa ko liggéey ci ay alxuraan yu baree bëri parce que ñun lépp si alxuraan ak sunna lañ ko teg te sunguf tamit génnu alxuraan génnu sunna. d' accord hmm. euh, Cheikh Hadi li ma bëggoon wax foofu tam. lu dafa dafa neex a dégg daal. waaw dama laa jox ci sump rek parce que doomu aadama li koy jëriñ mu ngi ci buntu këram jarul sax muy dem ci àll wala muy tukki dem bi te fu fu nekk lu koy jëriñ mu ngi ci buntu këram mu ngi ci doon ay tànkam te mbir mi wilaaya la rek lijaaba boo ko amee ah soo tufli woon sax si ndox jox ko mu utiliser ko mu wér parce que gis naa kilifa yoo xamante ni da ngay ñëw wax leen seen aajo ñu jël seen loxo teg ko seen bopp ñaanal yàlla nga dem aajo bi faju mais li ma bëgg a jaaxal mooy ndax ñëpp doomu aadama boo gis ndax sunguf euh, sump bi ngay wax ak nga euh, bi nga xam ne a jox ndax ñëpp ñoo euh, taxawaay ngir mën a am résultat ndax am na ñu ci bari bari mën nga leen ko defal est-ce euh, dana fa am ndax ñëpp a doomu aadama bu nekk ak lu koy faj doomu aadama bu nekk su ñëwee wax ñu soxlaam dañ koy xoolal. xoolal ay biddeewam xool na la taxawee lan moo tëj ay wërsëgam lan mooy ak gàllankooram. est-ce que du rab est-ce que du àndandoor est-ce que du làmmeñ est-ce que du bët loolu yëpp dañ koy xool suñ ko xoolee pare. ñu xool ban bunt lañ ko mën a ñaanal yàlla moo xam ci alxuraan la moo xam ci sunguf la moo xam si jat la moo xam ci toog si jaada liggéeyal ñaanal ko yàlla la waaye buntu bu ñu nekk dañ ko siy ñaanal yàlla te incha allahu rabbi suñ xoolee ba xam lan mooy jafe-jafem suñ ko ñaanalee yàlla aajo boobu dina faju ci lu matut ay waxtu macha allah Cheikh Ali fi may daanalee foofu ndax yaakaar naa loolu rek mën na li ma koy faral di waxee bi mm-hmm. waaye fi may dugg mooy euh, da gis ñoo xam ne dañuy ñëw xëy na dañuy yor benn anam xëy na benn xawaatim rek la bind ku ñëw jox la ne la moo mën a faj sa aajo mais loolu ndax ànd nga waaw loolu ànd naa ci parce que xam-xam du doy parce que nit ki mun na ñëw nga jox ko benn xaatim benn xaatim rek mun na faj aajo aajo yëpp sans dépend nag ci xaatim bi ak ni nga koy liggéey mais askan bi nag leen bindal leen defal leen ba seen xel dal jox leen loo xam ne ñoo ko moomeel seen moomeel la duñu mën a d'accord waaw loolu kenn ku ci nekk xam nga nit ak soxlaam moom soxlaam rek moo ko yëkkati waaye yow mi koy ñaanal yàlla yow comme yow su fekkee ne yow juboo nga ak borom su ko defee yow xam nga fan nga koy jaar nit dina ñëw sax nga bindal ko jox ko fekk lu koy lu koy saafara nekkul loolu nga koy jox mu dem lu lu koy saafara ci biir kër gi la si si jaade gi la waaye di ko bindal jox ko mu dem pour dalal xelam parce que soo ko joxu dara danaan kii ngi sëriñ bi jox ma dara waaye lu koy saafara ci biir kër gi la macha allah mhm. kaaraange nag kaaraange ndax ñu ci bëri nag ubbi mën nañ ne yomb na mais problème bi mooy kaaraange mooy problème ndax euh, sëñ bi ay bal yoo xamante ni am ñoo xam bu ñu ko dooree moom buy egsi di daal ñu bëri dañ naan la mën nañ la mën nañ la sécuriser ba nga xamante ni yow sa bopp dara du ñëw uh-huh. bal lu bal bi garaaw garaaw bu leen da ngay doon uh-huh. mais yow sa kaaraange euh, naka nga ko koy doxale waaw kaaraange moom wax dëgg yàlla loolu moom amuñ si lu ñuy kii parce que luñ nàmp la loo xamante nii la xam-xam cosaan la xam-xam boo xam ne xam-xamu wér la parce que doomu aadama li koy aar nekkul ci mbedd mi la waaye ci biir kër gi la war na ko jëfandikoo balaa moo génn nekkul lu muy takk sax parce que su fekkee takkoo ko soo génnee kon du la aar waaye am na loo xam ne boo ko defee sa yaram fu la neex dem fu la neex fanaan lu la neex lekk te kenn du mun ci yow dara te bu ñu neexee lu lu nekk lu ñuy bind tegtal bu ndaw la boo xam ne bu ñu la ko joxee nga dem utiliser ko fu neex fanaan fu la neex lekk mais mais loolu lay problème ci côté kaaraange ñi dañ ñëw naan dañ lay jox xëy na moo xam li ñu lay jox ngay takk. Mhm. problème bi mooy mën naa toj benn. Mhm. ñaar am na ñoo xam ne jafe-jafe takk. Mhm. Euh, ñetteel bi am na ñoo xam ne ñaareel bi mooy am na ñoo xamante ni wàllu sangu sangu bi ak takk bi léegi lan mooy ñaar yooyu bi ak takk moo gën a wóor ci wàllu kaaraange. ñaar yëpp a que doomu aadama moom dafa war a yittewoo sangu wala mu yittewoo takk wala mu yittewoo sax suuru wala mu yittewoo ñu koy di taal loxo ñu koy ñaanal yàlla parce que kaaraange moom soo ko bëggee am parce que su fekkee lu ñu takk la boo ko fàttee aarotoo waaw kon kon kon kon kon lu jar a bàyyi xel la su fekkee boo ko sangoo su fekkee setoo su fekkee alxuraan la nga sangoo ko loolu noonu mun na la bañ a jëriñ parce que nit doo doomu aadama buy sangoo gàllaaj war na set war na am melokaan yoo xam ne war na koo mel mm-hmm. loolu yëpp war nga koo xool ci moom ba nga xamante ni nga xool lan nga koy jox ci lu ko war a aar moo tax duñu la jox benn yaramu doomu aadama bi set. Mhm. mën a yomb de. ah doomu aadama soo gisee ndab bu bu tilim. nga bugg cee yàq indi ko nit ñi lekk ko kii xel mi sax du ko nangu ba nga koy lekk. waaye di jël ndab li raxas ko ba mu set. loolu mooy kaaraange gi. su ko defee loo ko sotti nit ñi danañ ko am xemam lekk moom tamit dina am xemam lekk ko. jërëjëf mbokk yi Cheikh euh, Hadi Deme Hadi Deme euh, borom euh, wilaya gis ngeen ko ni ma ko waxee ñu faraloon di ko fekk ci diwaanu fi nga xam ne moo di Saloum waaye moom la ñu amal tey xalima bu ñëw macha allah ci wàllu xam-xam bi le numéro téléphone baa ngi noonu 77 361 02 75 Cheikh Hadi ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni tey soxna yi nga xam ne nag Cheikh Hadi yaakaar naa ni ki réew mi nga bokk te gis nañ mm-hmm. soxna yi dafa mel ni borom kër jafe na leen mm-hmm. benn Euh, waaye tamit góor ñi wax tamit lépp dañuy <laughs> uh-huh. euh, loolu xanaa loolu moom euh, da nga koo gisul wala dañ laa diisul soxla yi soxla yi <laughs> moom loolu moom moom moom mooy soxla jaamu yàlla yi parce que yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ne ko doomu aadama nañ takkante. nañ say seen biir mm-hmm. waaw kon kon nit ñi dañoo war a góor ñi dañoo war a takk soxna soxna yi tamit war nañ am boroom kër te loolu bokk na lu gàllankoor jamono jii nii bokk na ci li nga gàllankoor parce que doomu aadama dangay gis lu ko tëj dafa mën a bëri mm-hmm. rab mun na koo jàpp ba su demee moom dina bëgg soxna de waaye bu demee dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy suufeel wala ñu ne ko xaaral ba ci kanam di ko dawloo fekk moom rab moo ko moo ko téye rek mun nga bëgg nit ba bugg koo takk mu mel ne dañoo féewale seen wërsëg yi rab da da koy def mun nga mun mun nga bañ a nekk sax sa xel bañ a nekk sax si soxna loolu rab da koy def mun nañ see liggéey benn bunt boo xam ne yow même boo bëggut yow boo bëggut a takki sax waxin la rek dinañ la dem takkal indi la te kuñ lay takkal dina di nga ko bëgg uh-huh. mm-hmm. ah waaye sëñ bi loolu dañ lay liggéeyal loo xamante ne ci alxuraan la génn alxuraan suñ la ko defalee yow même boo bëggut. waaw dinañ dem bëggali la takkal la indi la te suñ ñëwee di ko bëgg. dañ ci ànd force force ah, ànd rawatina nag kon nga bëgg. tabarkal euh, waa waa ma ñëw <coughs> tuuti foofu ci wàllu woowu. Mhm. Euh, rëng ci côté biir sëy. Mhm. Euh, ñu bëri tudd nga ko léegi muy wàllu rab muy mhm. faru rab. coro rab problème boobu xëy na dinañ àndante mais problème bi ci biir boo xoolee da nga xam ni y a quelque chose. waa mais loolu tam solution bëri nañ ci ay solution am na loo xam ne mën nañ koo bind si sóoratul jinni suñ ko bindee si sóoratul jinni boole koo deru deru mbëtt jox la nga takk ko ñu am lu ñu la defal nga boole kook reenu reenu daqaar nga sangoo ko boo ko sangoo juróom-ñaari fan nga koy sangoo téere bi da nga koy takk du jëkk sa ndigg tàggoo nga ak faru rab ah, da ngay am cofeelu bëgg jigéen léegi sëñ bi dafa am ñoo xam ne seen rab dafa dëgër bopp eh, sëñ bi ah, sëñ yaa sëñ bi doy na war li ngay wax ni dafa ah. xam nga lépp ci njëlbeen maa lépp lépp si njëlbeen maa ngi lay wax ne nit ki soo amee li jaaba dara jafewu la ah, ba pare nekkal jubóol ak seen borom gi nga doomu aadama bu jubóol ak borom lu mu ko ñaan yàlla may ko ko lu si lu dul mooy yàlla nag waaw lépp lu may def lu dul may yàlla su ma ko ñaan yàlla nangul ma ko kon kooku da nga ko garanti Cheikh Hadi wallaahi loolu jafewut d'accord nag li nga xam ni moom euh, dama naan mooy daj daj dab ci doomu aadama bi mhm. euh, muy wàllu këyit mhm. euh, Cheikh na ñoo xam ne mooy seen mooy problème seen problème la moo xam yaa ngi nekk fii yaa xam ne newoo fi uh-huh. am na ñoo xam ne kii seen problème la te ñu bëri dañ naan la dañ lay jox délai uh-huh. mais am na nag macha allah ñoo xam ne dañ ci am ndam mais am na ñoo xam ne uh-huh. échec loo xalaat ci loolu waaw kayit moom doo sax dootuma ci waxati ah, lu tax xam nga ci waxati yitte la yitte la yitte askan wi la sëñ bi loolu loolu tey ji ñu ma xam di ma doon seeraan su fekkoon ne dañ doon wax ne dañuy oote téléphone rek par exemple kono di nga sonn ah wallaay laazim ak waxtu yi nii wax këyit këyit fi ma toog laay toog ñaanal la yàlla. ah waay këyit jafewut. wallaay jafewuma. te nga que askan lu ma lay wax dinaa bind jox la nga yóbbu takk wala nga sangu wala nga suuru waaye këyit may naa la 21 jours soo amul këyit ñëwal poñe ma ak foo munti nekk. waay këyit jafewuma wallaay lazim. ah euh, loolu alxuraan lépp ci nekk. te jubóol ak seen borom rek boo jubóog seen borom lépp loo bëgg yàlla may la 21 jours 21 jours du ko romb dama laa jox loolu 21 jours du ko romb. lu mu am. lu mu ma ne nay nga nekk comme ça bitim réew bëggu kayit wala nekk fii bëgg dem bëggu kayit. 21 du ko romb. macha allah cest may daanelee muy wàllu wàllu fal. <laughs> gis nañu euh, campagne baa ngi ñëw élection yaa ngi ñëw. Uh-huh. fal buñ ko waxee ñu bëri nag ci côté boobu gën a xalaat sax ki fal xëy na mm-hmm. am na ko xam mu ngi am soxla ci côté bureau am mm-hmm. njiit moo xam ci wàllu concours mm-hmm. yooyu yëpp si la ah, euh, wax ci loolu waaw fal moom yàlla mooy fale yàlla mooy fal ku ko neex waaw te bu fal lekkoom jotee yàlla moo koy folli waaye yàlla jubóo naag ay jaamam yoo xamante nii mun nañ koo falal parce que yàlla wàccu defal kenn dara yàlla lépp lu mu wàccee ci jaamu yàlla yi la koy jaarale moo tax ñun fal dëgg mun nañ ne jafewuñu parce que am na loo xamante ni mun nañ koo bind yow ak fukk nit par exemple ngeen bëggoon ko. ñu ñu defal la ko toogal jarul sax ngay dem di defi dara. ah waaye nag yow yow tey tey mhm. euh, ñu mhm. mhm. euh, soxla woon tey gis Cheikh Hadi la ah, ah, ah, da koy garantir wala moom noo koy xalaatee. juróomi sax dafa am tegtal. juróom juróomi sax am na tegtal bu mu waree foofu noonu. parce que parce que turu yàlla yi pay si siru si siru jëmm yàlla ji juróom la foofu rek am na tegtal booy wane te te ca wàllu fal boobu noonu kuy falu moom jarul ñu si sori sax ah. waaw ah. kenn ñaanalu ma benn politicien ñëwu fi pour ma ñaana ko yàlla waaye waaye waaye waaye gis nañ ki nga xamante ni moom la yàlla joxaat réew mi gis nañ ko wallaahi lazim gis nañ ko gis nañ ko ah. mhm. ma ne ma ne ma ne ma ne loolu neex naa xam parce surprise du am ci élection yi. du ci am du ci du ci am. ah yow surprise du am moom ci élection yi. du ci am. tàkkal surprise du am ci élection yi. macha allah fooy daanelee. Mm-hmm. waa ñu ngi leen gërëm di leen sant di ñaanal réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla wàccee barke yàlla def fi yërmande comme ñu ngi jub ci campagne yàlla jàppale ji si élection yi ba nga xamante ni benn jafe-jafe bu mu fi am yàlla bu fi bakkan rot. ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ni ñooy leader yi bëggu di dagaan baatu askan bi am na ñu nekk seen ginnaaw suñ yuuxoo ñu yuux ànd ak ñoom bu ñu meree ñu mer ànd ak ñoom nañ bàyyi xel ñu noonu ba buñ leen lor parce que ñoom dara du leen jot waaye ñi leen topp ñoom rek lay jafe-jafe di jot kon nañ bàyyi xel ñu seen ginnaaw jërëjëf euh, Cheikh Adi euh, Deme borom wilaya mbokk yi moom la ñu amaloon jotaay euh, doomu Gile waaye mu ngi fii ci diwaanu Ndakaaru mbokk yi di ko santaan beneen yoon mel ni numéro baa ngi noonu ci écran bi macha di borom xam-xam 77 di ko ñaanal rek allahu buur bi subhanahu wa taala doole guddal sa fan la defal tawfiq ak taysir la yaaxa defal la sa ci barke yonent bi nga yàgg lool di jëflante gaskan wi waaye tam sa ci wàllu éclairage bi euh, caméra bi montage bi l'infatigable Mamadou Dóor waar di ko baral seen sekk ngërëm mm-hmm. ci wàllu euh, réalisation bi Serigne Aliou ci wàllu présentation bi ngeen ci doon ànd ak seen mbokku taali bi seen jotaay xalima bu ñëw seen mbokku taali bi Mouhamadou Lamine Muntaka yàlla mi borom jàmm te it ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla sa borom bi doole ñu defal jàmm mm-hmm. dina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen ñi xam-xam ñoor ak sunu jotaayu xalima bu ñaaw di dalal ci sunugal 24 point net kon nag tey